Assalamu alaikum wa rahmatullahi ziar mën na ma wax rek ci turu Cheikh Mamadou Moustapha loolu te sëriñ wut ndax sëriñ bi moo waral turu Cheikh Mamadou Moustapha waaye turu sëriñ bi joxee diggalu sànni ay kàddu daanaka bàyyi ko bañ bàyyi ko moom war faa delluwaat kon sëriñ bi dana nu sant ci mu seere gën a fi gis dëgg ci doxin bu rafet bi dafa mel ne lu mu ci waroon wax rek Serigne Sam wax na lépp ay cant la ak seer ndax liggéey bi rafet bi mu rafet mag bi mu mag ñu doxee jaari yoon ngir jaari yoon Serigne Moussa di wax rek yitte ju ma sëkk parce que bu ma sëkk rek dafa la laaj yitte jooju nag ba mu jógee ci sax moom dafa ñëw suñu jëwriñ ji Cheikh Mouhamadou Bachir jiiteel ma taxawaay mel na yitte jooju kon dana ko wàll mu jël su ma ne sax da leen ko wàll kon damay dugg ci suñu liggéey dana ko wàll mu jël te kenn ku nekk nag si yitteeg si pasteef ngir ñu mën a waxee nii ñu ndax wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi doon dund mbir mi yëg nga bu baax ne na ku nekk dañ ko ko defee mën a def ni ko sëriñ Sam tënkewaat jotaay bi itam bu ko déggee rek mën nga caa xam la nga dund wala la nga fekk muy kenn ku nekkee ci la nekk ak ndam ca war a nekk yitteel ko fa seefam ci taxaw ba mën a taxaw ci yitteem pasteefam ci ak bu ko liggéey bi ñoom tax na ñun ñëpp kenn ku nekk xamal nga sa bopp ne ñu ñoom nga sëriñ Basiru boole gi ñu boole liggéey bi suñu jëriñ moo tax ñu ñoree ko lool kon bëggam bëgg liggéey sëriñ Tuuba bëgg liggéey bi jaar ci yoon bëgg ñun ñëpp kenn ku nekk la ngay def da def seeral nga seetal Sëriñ Tuubaa kon lépp luy tax mu baax dañ lay def loo nga nekk luy tax mu rafet nga nekk loolu Sëriñ Basiru di ko dundal noonu ñun ñëpp mu di ko dundal ci suñu biir loolu rek mooy tax mbooloo bokk ngir def ko noppi ndam am ci kenn ku nekk da ngay def bu yàlla taxee Sëriñ Tuubaa rek tax bëgg mu baax rek tax ñëpp nekkee foofa ñu defee résultat bu baax te loolu moo andi lii li mu fi liggéey loolu rek la mën a dina ci mën a dégg kenn ku nekk def na li ko doon def nam ko war a defee ñu gën a rafet bu amee résultat bu mag rek mooy am kese bi mënut a am benn bu fekkee day luñ lu wër kenn ku nekk toog ko ne fii ma jaar dara du ma ci romb lu yàq dugg ci biir lu ñu yàq amul fenn fu mu jaar rek lépp day baax te loolu rek moo am loolu rek moo am dañu mënut a xam nga jiitu di ñaan sa séddoo ak yittee waaye sëriñ bii di sëriñ taxaw ci taxawaay bi mu ci taxaw rey ñoo yàgg daje yàgg kenn ku ne yaa ngi yëg ne sëriñ Basiru mi ngi ci sa ginnaaw mi ngi lay soññ ci mbay loolu defe naa ñun ñëpp kenn ku ne mën nga def am lool tàmbalee ci man dañ ma ci amoon man ak ni ma ci doon soññ ak ni ma ci doon taxaw gëm naa ne kenn ku nekk sëriñ yi loolu nga tàmbalee bi sëriñ Ousmane bii maire dëkk bi projet la ngi programme bu bees boobu alerte boobu xam nañ ne def nañ ci yitte yu mat sëkk mu itam fañ nekkoon dañ fa nekk sëriñ bi su nekk bi sëriñ mën na ci diggante boobu lu bari ñu di ko xam waaye xam nañ laa yitte yu mat sëkk boo leen di fi toog kenn ku nekk noonu la ko loolu képp doole si daal moom dañu ko gërëm mooy yàgg si daal gërëm la sonal cant la ak cant rek la boo leen mën ñi bokk liggéey bokk sëriñ bi bokk mbir mi kenn ku ne yëngu ci sa xol ak sant ndax kenn ku ne mu réussir ko ba réussir ko kon nag Pastef dem Sëñ Tuubaa farlu te Pastef di ko sàmm ak yitte ñu defoon Pastef bi yitte ñu lan ci bëggoon am alhamdulilah yàlla yàggal leen yàlla leen suñu borom yàggal leen defal leen jàmm ñi doon liggéey ñëpp Sëriñ Tuubaa fay leen bopp Sëriñ Tuubaa moom boo fayal bopp soxal seen kon ñëpp yàlla na Sëriñ Tuubaa fayal bopp ñeent yàgg taxaw liggéey bi liñ ci bëggoon sëriñ bi ci boppam sëriñ Tuubaa la bëggoon ci bisam bi na dëppoog ni ñu ko defaree sëriñ Mountakha bu wóor na ma ko defee woon te loolu si la suñu mbir mi nekk ci loolu ci la ñu ngi dégg bu baax